Euh, donc dit elle monsieur le maire tu euh, tout d'abord parce que euh, monsieur le maire a vraiment diligenté le démarrage de cet important projet de l'État du Sénégal qui a vu le jour grâce à, grâce à son excellence le président de la République monsieur Macky Sall qui est le protecteur des arts et des lettres mais aussi qui est un fervent défenseur des savoirs. Monsieur le maire, je voudrais ici, en présence de vos conseillers, mais aussi en présence de cette illustre assemblée, apporter un témoignage important à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lorsque nous sommes partis lui présenter au nom de l'association Tengetutitang ce projet, il n'a pas hésité un seul instant, non seulement à nous accompagner, mais aussi à nous donner des orientations, notamment par rapport à l'intelligence du bâtiment. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui si Sénégal numérique, euh, qui remplace l'Agence de développement de l'informatique de l'État, est là. C'est parce que Monsieur le Président de la République nous avait demandé, dès les premières heures de la naissance de ce projet, qu'il nous avait instruit d'aller voir Monsieur Cherbaroum pour qu'il puisse nous accompagner. Et aujourd'hui, Monsieur le maire, nous voulions apporter ce témoignage à l'endroit du Président de la République

avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, mais surtout aussi avec l'avènement euh, des voies de communication bu ñu voies de communication transport ci la bokk un ngeen avion ni mu gaawee mais boo jógee fii tey boo bëggoon dem Chine lu mu ndaw ndaw di nga def juróom benni waxtu ci jaww ji di nga voyager lu mu ndaw ndaw juróom benn waxtu imagine nak ci temps yonent temps bu tedd bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi mais limu mu bëggoon wax fofu moy xam-xam mo yor nit xam-xam mooy suuxat askan te xam-xam mooy tax ba li nga xamante ne moom mooy askan kenn du ko mën a maanaam nasaxal loolu moo tax monsieur le maire dañ lay gërëm aussi ginnaaw bi nga xamee solos projet bi ba baral ko may leen di indil témoignage monsieur le maire dafa bëggoon ñu def ko samedi bi passé ma ne ko may ma tuuti ndax aussi dama bëggoon population ñu yëg ko ndax aussi non seulement seen mbir la waaye tamit ñu gën a préparé wu naam sax depuis at ñu ngi leen ci vraiment euh, ñu ngi leen koy yëgal duma ma nag ñëw ba fii nga xam ne dañuy démarrer ci kanam tuuti incha allah monsieur le maire dina def moom mooy euh, teg premier xeer bu njëkk bi te duma gërëm l'ancien maire de la commune de Rufisque Est monsieur albendoy ndax ci moom le mbiri tàmbalee ndax ginnaaw bi nga xamante ministère de l'aménagement du territoire du développement et des collectivités territoriales moom moo permettre financement bi génn moom laa njëkk dem waxtaanal mais surtout aussi bi ma waxtaan rek moom ba pare mu ne ma dañoo nekk maanaam ci wàllu mairie donc da ngay ñëw conseil municipal ndax mu jàll donc loolu yëpp tey monsieur le maire dafa rafetoon ma fàttali ko bu ko defee aussi nit ñi xam ne euh, les hommes passent les institutions demeurent li nga xamante ni xale yi moom laa bëgg a jeexale ndax dafa guddi bu ñu paree incha allah fii ak juróom-ñaari weer nga xamante ni tabax bi noonu moom la war a euh, maanaam c'est dommage euh, monsieur euh, Traoré nga moment entrepreneur bi néew fi parce que dafa xawa tawat monsieur l'architecte aussi mu tombé mu tawat mais tay naroon nañ len wax structure bâtiment bi ak it vraiment liñ ci nam mais nak bëgg naa waxtaan ak yeen tuuti xalé yi wax len né jamono ji ñu tollu xam-xam dafa am solo jamono du ñu aussi xam ni ngay outé xam-xam dafa am solo xarala yu bees ci dëgg la am solo Facebook baxna WhatsApp baxna instagram Instagram waye na gis ngeen livre dara du mom moo tax incha bés bu ñu fi tegee bërëb bi dama bëgg mu nekk seen bërëb dama bëgg maanaam bu mu désemplir chaque jour nay fees xale yi dama bëgg bibliothèque bi chaque jour muy fees. di am mbégte bu baax di fi teew tey ngir euh, pose première pierre bibliothèque multifonctionnelle bu Colobane bi nga xam ne moo ñu fi dajale tey. di gannaaw bu ñu nuyoo autorités yi fi teew yëpp nuyu madame le maire conseillère. Euh, docteur Nafissatou di ko gërëm aussi si taxawaay bi mu def ak xale yi xam nañ ne lu am solo la si réew ndax réew kenn mënu ko développé lu dul ne da nga bàyyi xel njàng ma réew kenn mënu ko développé lu dul da nga bàyyi xel yarum gune yi donc ci loolu la yëngalu la ñu ngi ko si encouragé bu baax di wax wax ne ñu ngi si euh, en tout cas dynamique boobu ñun au niveau de notre mandat dans la commune